alors salaamaaleykum internet du Sénégal maa ngi leen di nuyu di leen dalal ci émission Focus Star boo xam ne nag amoon na ku ñu bëggoon dalal depuis longtemps ñi ñi bëggoon ko One Lyrical One Lyrical di ko réclamer tey la ko yàlla dogal ñu ñëw seet si ko nag ci studio Def Musique moom ak madame Dieng ah, ñu nar a di waxtaanee lune de miel son du moment son boo xam ne euh, surprendre nañ ñu bëri parce que ju ko woon ñu ñëw ñëpp apprécier ñu adopté madame nag dugal ko nag ñun ñunoo ko adopté ñun d'accord nañu moom nag continuer rek xam nga euh, ñu ñëw seet si leen ñoom ñaañ waxtaan ak musique One Lyrical carrière am ñëwaat tamit euh, waxtaan ak madame Dia ñu def daal lu fën d'accord ngeen <laughs> ma bàyyi ngeen ngeen nuyoo internet yi ak seen fans yu leen di seetaan. salaamaaleykum déjà maa ngi lay nuyu yow Aïda di nuyu internet yi ñuy seetaan yëpp di nuyu sénégalais yi xam nga nuyu ñëpp ñuy bëggee culture urbaine rawatina musique quoi musique sénégalaise One présenté madame est-ce que doo présenté. ah madame madame madame waaw waaw madame moom maa gën a jekk ci présenté ko quoi. waaw moom mooy euh, Leyna. Mhm. turu artiste am. Mhm. donc turam dëgg dama koy leb. damaa mhm. la fen ma koy wax. donc mu ngi def euh, début am ci musique bi en deux mille vingt deux récemment son bu ma génnee bu tudd Lune de Miel et que euh, son boo xam ne daal gis naa ne neex na Sénégalais yi quoi. surtout partie boobu. yaa ngi tellement replié waaye il a trop de vidéos yoo xam ne nii mënoo ko sax posté en fait. Mhm. donc je me dis que c'est c'est bon début. Mhm. Acha ah, non rien de plus tu as tout dit. waaw <laughs> nuyul Falsi. di nuyu di leen remercier yéen waa Sénégal et puis. Euh, j'apprécie vraiment cette invitation et euh, di nuyu Sénégalais yëpp surtout les fans de Lune de Miel. Mhm. <laughs> xam naa ne instant bi mi ngi tasaare mais bon yeneen yi yi dàq gi ñëw daal incha allah. Mhm. alors Wane euh, 2013 loolu Sénégalais yi découvrir nga ñëw 2017 2016 2016 nga gën nga nga gagné Flow Up. benn compétition boo xam ne ñu bëri tey bu ñu leen di wax euh, rappeurs yu mag euh, gagné nañu compétition boobu noonu yow nga bokk ci nekk membre fondateur de Def Musique génne nga ay hit yu bari yoo xam ne xam nañ ko nit ñi apprécier nañ ko nga imposer sa bopp si hip hop Galsen tey su ma la doon wax de 2013 à 2022 tey soo doon def sa bilan carrière lan nga may wax. Bah, je positif. Ça va là, quoi. Mm. Ça parce que pourquoi ça parce que am na fu ñu jógee tu waa affaire yi ci benn quartier la commencé mu ngi sama quartier ginnaaw raay c'était en 2013 boobu laa amee amuru musique bi quoi donc commencé di si di si xuus nang-nang di dem ba 2016 ñu def benn concours boo xam ne moo gën a mag Sénégal muy flow bi nga wax sànq. Mm-hmm. ma remporté ko si plus de 420 inscrits. je pense que c'est pas c'est pas c'est pas rien quoi. Mm c'est quelque chose donc benn benn départ la woon boo xam ne nii sama koñ samay am di jaam ñëpp a ma ci affaire yi. waaw vois un peu après ça m'a ouvert des portes ma ne pourquoi pas ma def sama carrière si laa commencé 2016 après Flow ma génne sama projet bu tudd Selebe yoon mixtape 2017 mm-hmm. ma génne beneen bu tudd Boy Différent après ma génne sama album en 2019 et voilà je me dis que daal wan wanu Sénégal la en fait mm-hmm. wanu Sénégal la parcours bi gudd na guddul depuis boobu noonu ñëw ma ñëw rek gars yi xam ma ko am na lu ma def am na loo xam ne nii prouvé naa ko peut-être voilà au fur et à mesure daal maa ngi maa ngi impressionné gars yi te gis naa ne ñu ngi ñu ngi ñu ngi wuy ci sama univers quoi. Mhm. tu donc euh, pour le moment loolu laa si mën a wax. d'accord su ñu wax woon lyrique lu ñuy gën a jàpp ci yow pour yow lyrics yi wala style bi wala forme bi ngay rappé lan la ñuy gën a jàpp ci yow bu ñuy wax loolu lyrique. originalité je dirais parce que tey peut-être bëri na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi def musique. genre mën nga déglu ñu def dara nga ne ne ak ah, kii xam nañu kii wala kii mais one c'est one en fait côté style c'est one côté écriture c'est one côté voix c'est one tout tout est original en fait man sama sama gis-gis global ci musique mooy lan man dama considérer sama bopp comme un artiste rappeur là mais je suis un artiste nag mooy koo xam ni da ngay créer comprendre nga ni yow li ngay def euh, je sais pas yow yaa koy liggéey da telle sorte nit gis ko adhérer tu vois et je dirais sama sama Euh, sama kodu demuwaay. Mhm. mooy def li ma sentir li may yëg ak li may dund ak li nga xam ne gis naa sama ay nit di ko dund wala ay nit yoo xam ne xamuma leen quoi. Mhm. donc euh, loolay wan lii la. Mhm. mais lan mooy sa particularité tey. sama particularité man lépp je touche à tout. tout bàyyiwuma dara waaye bu njëkk ba dama doon rap rek. rap rek laa doon def saccadé technique flow tout au fur et à may dem maa ngi adapté sama bopp ci yeneen façon musique Mhm. tu sama baat sama baat rek instrumental la fait peut-être tey yàlla may na ma ba su ma tëjee studio xam naa nan laay liggéeyee ba def loo xam ne nii kat kii nit bu ko déglu boo xamee musique di nga ne voilà quoi c'est parfait. c'est parfait yeah. ok ci euh, YouTube on a on a cherché parce que balaa nga invité nit man je crois que di nga def ay quelques recherche xool lu muy kii ci YouTube sa clip yëpp totalisé 8 millions de vues euh, ñu naan un peu farataaloo clip One Lyrical il fait pas trop de clips amul vidéo yu bari peut-être euh, rap son yi ñuy dégg di ko peut jënd wala streamer yooyu noonu mais clip farataaloo ko nan ngay wax loolu ñuy ñuy wax loolu. bon du question de ñàkk a farataal. Mhm. clip la sax mais. xam foo jëm la en fait xam nga di. teel teel li ak xam foo jëm bokkul mhm. par exemple je me am na benn période boo xam ne dama doon génne ay vidéo tout le temps dama doon génne ay son tout le temps tu mixtape bi du ñàkk son yi du ñàkk single yi maanaam chaque instant maa ngi studio je suis concentré maa ngi def ay son. Mhm. donc moom mooy sama passe-temps préféré moom mooy sama liggéey. tu vois un peu donc man je me dis ne wan artiste bu tolloon ci benn période la boo xam ne nii c'était pas trop ça par exemple euh, vision bi mu ngi fi woon quoi. Mhm. mais tey euh, côté toog concentré wu ne man lii laa bëgg a def dans. combien d'années dans 4 ans wala dans 5 ans wala dans 3 ans lii laa bëgg doon lii laa bëgg représenter mhm. tu vois un peu je dirais je dirais loolu moom moo manqué woon wan te loolu moom moo def doole woon tey mooy que ne instant bii nii yàkkamtiwuma dara tu vois la preuve euh, vidéo bi ma mujjee génne ak soxna si mu Idine Damiel je pense que gars yi gis nañu en fait <laughs> pas trop nag fort si toog wax non lii laay def comme ni ko gars di defee tiitalaate affaire yooyu je préfère liggéey bàyyi liggéey bi waxal boppam ko et je pense que 2022 affaire yi euh, dina dina yëngu na sànq <laughs> xam naa <laughs> nga nit moom mhm. boo nekkee si dara yàlla boole la ak nit ngeen bokk li ngeen bëgg donc dafay gën a yokkal dafay gën a yombal affaire yi en fait mhm. donc waaye daf may jox boobu yaa gën a deux def naa def na onze mois douze mois yooyu def na un an son boobu yan retour nga ci amoon déjà phase test la woon en fait mhm. phase test la woon ci pas ci style bi ma bëgg a imposer yi parce que style bi je pense que maa ngi ko doon maa ngi leen ko doon wan ci sama album 2019 mais tey je pense que ñun dañu nekk ñoo xam ne nii ñooy waxal suñu askan en fait mhm. tey par exemple y a milliers de gens yoo xam ne nii ñu ngi ñuy seetaan ñu ngi ñuy déglu bëgg nañ kaas dara wala bëgg nañ ko wax mais xamuñu fan la ñuy jaar ba def ko donc ñun artistes yi ñun la déglu. parce mhm. que ñun ñooy porte bi gën a gaaw pour nit yi déglu leen en donc fayeeku c'est un boo xam ne nii sa parle de par exemple yow journaliste bi wala caméraman bi. Mhm. wala apprenti njëkk njaay bi nit kuy liggéey am na si loo xam ne nii moom ngay xaar. Mhm. par exemple di nga gis ñoo xam ne dañuy liggéey si ay entreprise wala ñu ay liggéey liggéey rey seen bopp durant un mois weer bi dee gars yi di leen dawloo wala genre affaire noonu tu vois un peu. Mm-hmm. moo ma doon wax naan patron fay ma. Mm-hmm. weer bi dee na tu vois un peu. Mm-hmm. donc c' est boo xam ne daal c' est c' pour képp kuy liggéey képp koo xam ne fonctionnaire nga comprendre nga mënoo jot sa paiement à temps voilà c' est un truc fun après ça parle aux gens. d' est que nañ dem ci madame. 2022 <laughs> après ñu ngi ñëwaat ci yow ñun ñu ngi yem fan. 2021. kal ko foofu <laughs> moom de la ñëw lune de miel la ñëw daal nit ñi d'accord mais avant ça def na mannequinat je crois. ah top modèle nit ñi image am xamoon nañu ko ci African Doll tey su ma la doon wax nga présenté wu en tant que Leïna bàyyi African Doll bi fële. non African na sax. <laughs> dee na de ah. <laughs> def Leïna bi alors en tant que Leïna nga ñëw man clip bi ba ma ko gisee déjà je me kan mooy Leïna sax ñu bëri ah. ma di posé woon <laughs> question boobu pour man African Doll ngay garder. ñoo lay na alors bu ma la doon wax nga présenté wu en tant qu'artiste lan nga may wax. une nouvelle artiste sénégalaise. Mhm. qui promet. ah bah je vous dis beaucoup de choses. Mhm. des surprises de malade <laughs> inchallah. Mhm. et euh, j'aimerais bien rénover la musique sénégalaise yóbbu ko foo xam te peut-être yegg na fa mais fu gën a sori quand même et puis. Euh, détrôné sama tante. sa tante kan mooy sa tante. non bàyyi mu sedd. Ah, sa tante dina xam sa ban tante dina dina xam. ah mais xamal nit ñi xamal la nit ñi sa tante. ku fi ne. bàyyi yooyu. <laughs> en tout cas da nga bëgg a détrôné sa tante. incha allah. Hmm. waaw ñu wax kan la rek. noo ci ci ci yoonu détrôné ko lañ nekk 2022 <laughs> ça promet et ça mhm. y aura beaucoup plus de surprises les années à venir incha allah. alors ci bant style. rap ngay rejoindre monsieur wala euh, wala da way nu muy doon rap tuuti. rap bi dañ ko bàyyi ki ko moom. <laughs> yow nga géré beneen côté bi ban ban style nga ñu nar a par exemple. là je suis pas encore vraiment fixe sur le style que je veux faire mais je touche à beaucoup de choses et mhm. vous enverrez quelque chose inchallah. Mhm. Euh, en ce moment je en train de me chercher dans plusieurs styles te bëgguma focaliser wu tamit ci benn affaire bu yàggee nga sàpp nit ñi tu vois que j'aurai ma touche personnelle. Beaucoup d'égues, tu diras direct que elle, c'est Léna, tu vois. D'accord. Tout en sachant que je ne serai pas fixe sur une seule chose, en fait. Mm -hmm. Non, non, non, Alors, Léna, ben, ben son que tu as fait, que tu sa voix, tu peux percer sa musique. Tu l'as dit wax ma ko. Euh, di ko wayat de. <laughs> Fu nga wayat. ko. En tout cas, euh, musique dama ko doon fooy en fait, mhm. de base. C'était juste pour euh, m'amuser mu libérer après daan naa dem tamit studio amoon benn studio bu nekkoon sama koñ ci Cap fa laa doon nekk ak ñoom yaa orchestre bi ñuy tëgg di reprendre ay son wu jàmbur et mais après c'était juste un passe-temps parce que euh, école moo taxoon. Mhm. après mannequinat bi ci la ñëw këf lépp et puis euh, sama sama alaaji as. Mhm. ma ne pourquoi tu fais pas tu fais pas de la musique ça t'intéresse pas et tout ma ne ko si ça m'intéresse mais euh, ah, il fallait une personne vraiment qui me qui me cadre bu may bu may teg si yoon wan ma nan la ak naka la mhm. du coup je pense que je l'ai retrouvé chez lui mhm. et c'est ce qui m'a aidé à vraiment me lancer dans la musique mais ban son waxagom son bi nga non non di ko fi wax mais waa xamee woon nañu ma hello. <laughs> waa hello wala ati bu xool <laughs> mu xool Beyoncé est-ce que dina jot ci soo bi. bàyyi ba bàyyi wala Adele bu Adele la wala Beyoncé du ma ko way. <laughs> ah Beyoncé tamit def na hello de. bàyyi Adele bi ati defal ñu tuuti rek. bu très cher lépp lépp naa ko bu bëri de di <laughs> en tout naa ko ba kon lune de miel bi sa sa sa partie couple boobu noonu dina ñëw si kanam dina ñëw de damay damay bañ xale yi moins de 18 ans yi xam nga ñoom sax ah, traîne nañu ko ba ah, sonn dinañ ci ñëw mais ñoom ñoo bañ foofu <laughs> ko lune de bi foofu ñu taj ko mais di nga ñëw si kanam waaw ah, damay bañ waa jëm rek jël si ma di nga ñëw de fu mu nekk dama lay bàyyi nga reposé wu nii après ma ñëwaat ci woon après ma ñëwaat ci yow alors 2021 fayeekul lañ doon waxtaanee maintenant style one Euh, dinañ gis euh, instant bi rappeurs yi ci clash lañu doon def après ñu arrêté clash bi jël beneen style beneen sonorité lan la pour jaay musique bi la wala commercialiser parce que dañ naan la rappeurs yi léegi dañuy commercialiser plus que way contenu wala def beneen lyrics boo xam ne ça intéresse euh, les Sénégalais. bon après quand on dit rappeurs yi c'est un peu vague parce que rap du benn nit rek kese moom moo koy def quoi nous sommes des milliers mhm. de jeunes. yoo xam ne nii dañuy pratiquer musique hip hop bon après kenn ku nekk ak sa façon bi nga koy defee quoi donc hmm. man je ma di que dañu toog ci dañ dañu toll ci moment boo xam ne nii amul kenn koy ñëw nga ne ko non yow façon musique bii nga war a def wala nii nga ko war a defee kenn ku hmm. nekk dañ koy def ak ni nga ko sentiree quoi après le résultat final mooy nga def ko mu atteindre le nombre de personnes bi nga bëgg hmm. mu dem fa quoi tu vois après faut pas tamit ñuy ñuy man j'ai toujours été contre débat wu musique mbalax rap mbalax wala genre affaire yi noonu quoi. alors commercialiser musique bi plus parce que style bi ngeen utiliser. c'est à l'international loolu la ñu teg ci boîte de nuit ak yooyu mhm, noonu. Mhm, mhm. mais léegi da ngeen arrêté rap bi maanaam rab bu sec bi rab boo xam ne genre da nga koy déglu xam ne lyrics bi tegu na. dina intéressé euh, population bi thème yoo xam ne ñun dañ koy dund ak yooyu noonu da ngeen ko bàyyi di way love di way affaire yu neexal di nooyal noonu. bon après après après le problème c'est que musique rap dafa yaatu en fait ñun on est des milliers de jeunes à pratiquer musique rap donc kenn ku nekk ak ni nga koy defee ak ni nga ko ak public bi nga bëgg a toucher surtout loolu noonu donc après man te j'ai toujours été contre débat wu rab bu dëgër bi wala rab bu nooy mbalax bi instrument kese la en fait tu vois après beneen secret boo xam ne tamit nit yi xamuñu ko rappeur la yàlla may mu mën a tegu si façon musique yëpp xaw ma ndax comprendre ma. Mhm. rappeur la mu a tegu si façon musique yëpp boo ko indilee mu tegu si boo ko indilee mu tegu si boo ko indilee leneen leneen mu tegu si am tey amul benn mbalax man booy jël naan ko kaay rab. du la rabal rab na fi e, e, e, am am na ñoo xam ne mën nañ ko def am na ñoo xam mun mais tey 1 pour cent boo waxee benn dootu tudd ñaar. dëgg la tu vois un peu donc man je me instant bi dañ toll ci benn stade boo xam ne. musique urbaine bi mu ngi commencé am doole ju bari comprendre nga parce que tey am na ay ay jeunes yu bari yoo xam ne nii yaa ngi leen di dégg à travers musique tey moom moo tax nit yi xam leen a travers musique moom moo tax ñuy dawal oto wala je sais pas ñu ngi toppatoo seen ay business par rapport ak li leen revenu yi nga xam ne moom la leen musique di jox. Mm. tu vois un peu après voilà quoi musique c'est musique en rap c'est rap kenn ku nekk noo ko defee baax na j'en profite pour wax ko pour lancer message boobu noonu à sama jeune frère yëpp. yi def tënk. bu leen kenn dugal seen bopp ay non lii moo baax lii baaxul defee ko noo ko sentir pour man le plus important mooy fais avec ton cœur yow déjà nga bëgg ko après mu neex nit yi quoi loolu la. amul amul amul nga jaay ko amul règlement c'est ça mhm. non lu baax mooy jaay boppam. waaw jaay bi rek léegi <laughs> d'accord d'accord jaay bi rek nekk nii moom streaming rek. ñoom ñëpp bu ñu génnee ne acca dem leen streamer mais c'est mooy doxal musique tamit mais sànq wax nga benn affaire mm. da nga ne gars yi dañuy ay mbégal la ñuy way affaire yu nooy affaire yooyu noonu mais nag euh, souvent gars yi dañuy fàtte ne sabar les artistes dañuy génne ay projet te pour man son yi nga xam ne moom la nit yi gën a bëgg bu ñu ko defee ah yi nga xam ne moom la nit yi gën a bëgg son yooyu noonu moom mooy feeñ après peut-être nit ku xamul il va profiter de diir non kii lii rek lay def te yow déglu woo waaj lu muy def maanaam jëloo sa temps dem xool catalogue am déglu affaire yi mu jot a génne wala déglu album am quoi mhm. c'est pas que c'est pas que c'est pas que love la wala wala lu metti mais xam nga rek ay émotion la en fait mhm. tu tey kenn ku nekk tey mën naa def musique love nga yëg ko comme mun naa def une musique boo xam ne nii dafay euh, dafay triste wala muy wax loo xam ne nii yow dund nga ko da mhm. koy yëg mooy lu jógee ci xol dafay dem ci xol c'est comme hypocrite ça yeah. intéresse tout le euh, ma dem ci fayeeku ba tey de après ma dem si luñ dem yàlla nag yow depuis boobu fan na nga nekkoon tamit parce que bu ma la ko laaj laaju ñu ne nañ ma waaw wan kal doo ko laaj ñun toogoon na moon nañ koo génneewul woon dara gisuñu woon vidéo am ba luñ dem doogee ñëw ñu ci saat ko euh, boobu noonu ba tey un an lan nga lan nga lan nga doon def moom laa xam un an liggéey studio bi laa xam One Lyrical bi ñu xam nga xam ne xëy na mën na bind son cinq son par jour ah lay naa waxal ma yow tam dee ma jàppale tamit dee ma jàppale <laughs> lan la doon waxee ñaata son wala mariage bi la doon pare wala lu mu demee la waxee ñaata son laa fi yor nga naan déedéet man kay xam non c'est juste mooy xam fan nga bëgg dem en fait comprendre li la tey boo xamee li ngay représenté xam li nga mën def ak fi nga mën yegg lan ngay yàkkamti ak koy jëkkanteel. ah ñi fi nekk. ñan fi nekk. ñoom gars yi fi nekk di chaque jour ñu génnee clip. gars yi chaque jour ñu classé te mu neex ñuy xool ñu ñu xaar suba su kiy génnee wan Lyrical gisuñu ko fenn mi ngi toog. di waajal ci mariage toog fi mu toog kenn du ko yab. tu <laughs> ah. <laughs> vois li mu wax dëgg la qu'on se dise la vérité c'est pas que sama jabar la wala li mu toog la wala dara mais quantité ak qualité c'est pas la même chose. ah ñuy ñuy xëccoo yi quantité quantité tamit waaw baax ah yow daal ñi ñi fi nekkoon kii. non non wax rek li nga wax laa mooy que ne. d'accord mooy wan il était focus ci boppam comprendre nga focus ci carrière am focus benn plan boo xam ne nii tey su ma génnee teg benn pas ñaari pas di nga ne wan bii nii nekkul wanu démb. comprendre nga li wax nii donc man genre genre artiste boobu noonu laay aspiré. chaque jour bu génnee surprendre voilà man su ma di que ne instant bii nii Sénégal. franchement amuma lu ma fi prouver du question de rëy la wala du question de da nga yëg sa bopp wala genre af xam naa lu may peso fi su ma génnee ci mbedd bi laa koy xam <laughs> du ay like yi ngay gis si internet bi wala j'aime yi wala fu ma dem nit dañ ma bëgg a fait mhm. loolu yàlla moom moo ko def donc xam naa lan laay représenté waaw man de dem naa ba tiwaawan kooku di ñu bëgg a rek wan lirikal donc à man d'être intelligent jéem ma xool loolu noonu lan laa koy utiliser mhm. positiviser ko ba am li mu bëgg en fait te boobu laa nekk yàggatul dara di ngeen si mais ñi ñiy wax par exemple y a des chroniqueurs y a des animateurs déjà bu ñuy lim des fois dañ day fàtte ne wan daal dafa toog fee euh, nit ñi raw nañ ko ñeneen ñi raw nañ ko. loolu loolu loolu loolu moom yaa koy wax. wan ah, wan kenn du lim man du man de wan kenn du lim di ko fàtte. ah parce que da toog un an gisuñu la wan kenn du lim du ko fàtte. neen peut-être diw génne na ni mais ani wan. ah kooku bàyyi ko. garaawul man je me dis. Euh, dama est-ce que lenteur boobu. ñu naan da nga yéex affaire gars yi ñu ngi lay ñu lay romb. Hmm. gëmoo nee naa la gisuma kenn. gisoo kenn dafa mel ni sànq li ma la wax fàttaliku woo ko kan laay njëkkanteel répéter kan laay njëkkanteel man li ma mën def wax baaxul <laughs> njëkkanteewu ma kenn sama bopp laay laay laay laay njëkkanteel en fait parce que xam naa lan laa mën a indil musique sénégalaise. te su ma la koy wax du lu may wax nii nii nii nii nii nga koy dégg mais lu ma gëm la ak loo xam ne dama si nekk di liggéey la loo xam ne dama koy jox temps ak énergie. Mhm. comprendre li mu lu may def ci biir studio peut-être sama jabar moo leen ko mën a wax keneen mënu leen ko wax. en tout cas gis naa si <laughs> ay featuring yu daal comme. Mhm. Ngaaka Blindé sax wax ko ko ba mu ko invité ci AES bi son boobu euh, yéen ñaar moom dafa doy waar. Mhm. soo moom dafa dafa dafa toj dafa nice. <laughs> donc euh, dam la doon traaye di rek mais xam naa ni noonu <laughs> saa yoo génnee uh-huh. day nice alors ñu dem ci madame madame après ñu def lune de miel bi la ñuy waxtaanee mu nekk ni madame lune de miel bi si idée kan lay jóge déjà son bi lune de miel déjà son la woon moom moom kese et puis euh, déglu ko ma eh si place <laughs> naan ko yërëm ma Mbadou. son bi dama ko mës a bëgg. Mhm. bi ma déggee partie mais yeggalewu ko woon. dafa tegoon premier couplet ak refrain ma topp ko si rek ngir yàlla sa moom sa day fàtte sax son bi. Mhm. jékki-jékki ne ko ngir yàlla may ma si place. après euh, c'est pas je dirais c'était un son qui qui l'aimait bien mais après xam nga rek mbëggeel mooy def loolu. Mhm. ci la may xaw a yërëm. xolu yërmande bi tooy mu invité ma si son bi mais j'ai je l'ai fatigué avec lune de miel mais de base sax c'était pas lune de miel hein. avant mariage bi la wala après. c'était avant le mariage. d'accord c'était bien avant le mariage après je pense si mariage bi lañ ko def je crois si mariage bi dañ enregistré lune de mais avant mariage bi topp naa ko si lune de miel bi. Mm-hmm. je l'ai fatigué avec moo tax mu mu yërëm ma moo tax en plus vu que dañ ko def ak xol. mbëggeel wax mhm. cas wax feeling wax mhm. fale ko mu neex gars yi sa couple kon moo ko bind yow wala moom malheureusement c'est moi c'est que yu bëri yaakaar ne wan moo bind affaire waaw nag bin bin ak kii. est-ce que triché woo ci bindam <laughs> ah di di xoolal waaxee est-ce que est-ce que triché wul daanaka fii la laa fi war a wax sax nag mu jàppale la bin bi nag ak i du ay wax say wan waxal rek moo ko bind wala yow franchement <laughs> eh. euh, dëgg rek <laughs> bi maa après en fait leen di jox dafa am dara dafa am lu lu nekk si moom loo xam ne nii franchement man gisuma ko kenn gisuma ko si kenn Sénégal du tamit encore sama jabar la moo tax ma yor parce que. je suis mhm. dur ci biir studio bu ñuy liggéey affaire de bëggee ak jëkkër ak jabar dama koy teg fële. Mhm. beneen kanam laa lay woon dañuy liggéey quoi. Mhm. tu vois un peu après am na benn affaire bu grave bu nekk si moom au début. man dama doon ñëw ma teg benn affaire wala ma def top line ma bindal ko ma ne ko defal lii nii xam nga essayer lii teg ok. mu teg des fois mu dugal ci ay idées après à un moment ma ne ko tu sais ce qu'on va faire tey jii suba mun naa ñàkk inspiration. wala dal su ma la bindalul nan ngay def comprendre nga. Mhm. mu ne ma waaw loolu noonu dëgg la ma ne ko léegi da ngay da ngay jéem a exercer wu nga def moom am na ay son yoo xam ne si ay douze la ko bindee ay moins de. <laughs> dégg 30 minutes non sérieusement ah. <laughs> mhm. ay son yoo xam ne moins de 30 minutes. yoo xam ne dañuy dugg si oto di dem balaa ñuy yegg fu ñu jëm mu bind son bi. tu vois après man euh, lu ma ci yokk mooy peut-être su ma gisee ay faay wala ma ne ko noonu lii mën na gën a naaj lii defee ko corriger ko un benn benn coach la en ce waaw si suuf quoi mais wax baaxul moo bind ba tey waxoo kër mu bind kër mu lébité moom moo ko bind <laughs> moo ko bind <laughs> alors ku eh, taxaw moo ko bind moo na moo ko bind bàyyi ma wax jox leen ko waaw waaw loolu moo jaaxal tamit. ah wan wax nga dëgg de wax na la dëgg nag. dama laa dama laa jub si commencement wax ji waaye déggoo wax na la dëgg nag. fer yooyu dañ ko xam. xam lan nga xam ci fer ak béjo. xam nga waaw architecte. da lay mhm. la. non yow moom force yow di nga ñëw nga ne man ah kër gi kat bëgg naa mu am lii bëgg naa mu am lii. Mhm. comprendre nga. d' accord joxe say idée un peu rek après ñu boole yëpp defar ba mun naa jox la dara bii yaa ko moom comprendre naa fa ngay waxee waaw ba tey rek am na lu mu ci joxe idée idée mi ngi si parce que moom euh, parti wam la ñu bëri reprendre ñu bëri moom la ñu reprendre bien vrai que clip ba mu doogee génn critique bokk yu ma ci dégg mooy c' était trop sensuel c' était trop intime mm-hmm. yéen retour yooyu est ce am ngeen ko des Deux, trois, je pense. D'accord. Mais la plupart, Rotouring, c'est am c'était des ay ay commentaires yu positif en fait. Mhm. parce que ñu si bëri ñoo ngi wax si naturel bi. si c'était original agriculture bi c'était original en plus. Euh, c'était plus complicité bi ma am ak moom si clip bi. et puis bi nice na aussi. et mhm. puis sax tamit lyrics tegu. tegu mhm. bi s'il te Ah, ah très bien. <laughs> yow yaa fi waaye bin bi ba tey doo téye. <laughs> Euh, man je me Sénégal lañ nekk. bien vrai façon loo def mu baax mu ñàkk baax gars yi dinañ la critiquer donc fees ce que t'as en tête en fait après faut pas faut nit yi fàtte na ñun ay artistes lañ comprendre nga lu ma wax nii. Mhm. artiste day dafay créer en fait. artiste peut être mën na wax loo xam ne nii keneen amul sañ-sañ wax ko wala wane loo xam ne keneen amul sañ-sañ wane ko donc mhm. nañu bàyyi ñu def suñu aar te ñu ñaanal ñu xam ne ay doomu Sénégal yu war a yóbbu si musique sénégalaise bi fu sori lañu mhm. di sàkku seen ñaan daal bien après nag détails yi mënul ah, am na ay yu gën a sax yu ñëw hmm. dara bi de moins de 18 ans la yaa ko wax sànq son bi wax nañ ci wax nañ sax moins de 18 ans ah bind de ñu bëri remarqué wuñ ko surtout célibataire yi tamit ñu ko cons ah. yaa ngi tooñ de célibataire yi de waruñu kon son bi billaay mais son bi est que succès bi xaaroon ngeen ko waaw bien sûr mooy li la wax sànq en fait gis nga nit booy def dara te nekkoo di maanaam tâtonné xam nga lu ngay def quoi xam nga fu nga jëm donc forcément da ngay xam lii nii bu génnee dina am impact dina def lii wala na def lale mhm. donc son bi kañ ngay xam ne am na doole avec la durée bàyyil fi yëg ci kanam Mm-hmm. ci ngay gën a xam ne je pense mu si ci ci nombre de vues bi sur sur YouTube mi ngi ci presque léegi mu egg 500000 vues mais sur TikTok moom c'est. mënu ma tourner tout gisuma mm-hmm. mm-hmm. hmm, oh, son bi mu ci tendance yi force. sa couple. succès bi succès son bi. waaw waaw mooy ma doon wax sànq en loo xam ne franchement ñun ça nous fait rien hmm. mu ngi nii toog xam na ko ñuy toog ñuy gis vues di yéeg wala nit yi bëgg son bi. Hmm. xam nañ quoi xam nañ avant ñu koy génne xam nañ lu muy def. Hmm. tu vois après le meilleur reste à venir. foofu rek yéen a ngi parewaat leneen. xaw ma sax. ah bu defee lu dem yàlla lu si topp sax yow. lan moo topp si dina bi laax xanaa ngeen wéy salamante salamante mën na ne alors so yéen ñaar seen seen seen duo nan la yow da nga ko saraxu pour dugg ci son bi nañ d'accord wa saraxu naa ko nag hmm. waaw sama sama sama jëkkër dafa am talent nag arrêté waaw dafa am moom talent moom lan dama lay de ah, nii nii koy moom bëgg bañ bëgg bañ la bëgg bañ hmm. nangu hmm. force léegi nan nga duggee ci son bi nag premier jour ba ngay enregistré ban mbégte nga amoon déjà wala son ba mu paree ñu tegal la ko lan nga njëkk ko wax. Euh, je sais même pas que y a y en mhm. mais après suñu enregistrement moom maak moom lay metti rek di nga ci jooy di nga ci yuuxu di nga si di nga si mer di nga si gedd studio bi. <laughs> lu ne di ko ci def loolu yëpp di ko si def. Mhm. mais après c'est un perfectionniste moo tax euh, pour nga liggéey ak moom du yomb. parce que day fas kanamam. waaw day ñàngal. day cheval visage am lunette yi. fii ngay nekk tu vas lui faire les yeux doux du la faale. Mhm. nga laajte pause mun la mon ami yeggali lii ba pare. tu vois donc euh, en matière d' enregistrement moom c' est c' est métti avec lui. Mhm. c' est autre chose. Mhm. mais euh, ça m'a quand même fait plaisir bi ma ko dégloo parce que c' un son que j'aimais bien et que j'aime toujours mais dama dama yëgoon son bi en fait du coup quand bi ma si tegee di ma woon juste mbégte la quoi. donc ñaata yoon nga ko enregistré par exemple c'est c'est la première fois ñaata yoon benn yoon da nga ñëw rek teg mu dem wala da nga def deux jours trois jours. déjà avant ñuy prise. Mhm. damay bind ba pare du ma ñëw toog si studio bi di déglu bit bi sans temps tu vois et puis euh, lu bu fekkee tamit dafa commencé ba pare dafa may yónnee bit bi parce que c'était avant qu'on se marie. Mhm. daf may yónnee bit bi. man ma bind de mon côté ma enregistre ko ma yónnee ko ko il me dit ça c'est bien on peut faire lii mën nañ ci def lii wala lii mën nañ ci yokk lii pourquoi pas nga tester lii et puis quand on a un truc boo xam te ni c'est vraiment calé bu ma studio parce que je je répète encore on n'était pas encore mariés mhm. du coup maa ngi woon sama kër et puis quand j'ai l'occasion je viens au studio on enregistre mais c'était pas des années quoi <laughs> avec nous c'est vite fait. c'est vite lu ñu mën a xaaraat ci yéen benn couple Mabo wan da ngay continuer sa carrière solo moom mu def carrière solo moo la di ngeen def son da ngeen di continuer collaborer ensemble. dañuy Mabo daal dañuy Mabo daal. <laughs> da rey ma. Mhm. non mais Mabo Mabo nag. franchement euh, waaw Mabo wu ñu fa laa mën yam daal. mais di ngeen projet ensemble. bah je sais pas. seul Dieu sait. seul Dieu ah. sait en tout cas. man li ngeen ñamal nii mu neex doo ngeen ko bëgg a dagg fii. man man man je ñu ngi ñu ngi ñu ngi liggéey. ñu ngi liggéey donc et que moom mu ngi ci mu ngi ci à fonds xam nga am na ay projet quoi. Mhm. <laughs> leen ko moom am na ay projet fii nii. Mhm. donc euh, waykat yi préparé leen seen bopp. Mhm. am ngeen xew de. <laughs> am ngeen xew bu rëy a rëy. waaw parce que du leen may dara elle a tout pour réussir. tu vois un peu après le maximum de concentration nekk ci li nga war a def ci li nga war a nekk boo ko waree def nga def ko après voilà quoi ça va te payer tôt ou tard. Mhm. alors moi j'ai vu des commentaires ci ci ci Leyna ñu naan est-ce que sa voix la. waaw du dañuy. Hmm? dañuy aale voile est-ce que yow est-ce que yow kenn kiiwul la noonu rek est-ce que sa voix gis nañ la TikTok nga def benn benn freestyle ak xawma kan benn chanteuse Amira voilà. mais bii man voix bi dafa doy waar de voix boobu nga am yow. xam nga Sénégal. kon loolu nga am. waaye woyal ma xool. xam nga Sénégal. xam nga euh, da ngay kii. Mhm. da ngay nan laay mën a dangay ngay da ngay leen di génn ay tor di nit naa la noo gisuma. xam mhm. nga genre euh, son bi mu def Amira du lu am effet du lu am dara dañoo toog nii improviser ko toog ci benn ru kii way moom mu way. Mm-hmm. tu vois un peu par exemple nit bu am nit bu mën way nit bu am timbre vocal foofu nga koy xamee paas mu dem rek dugg studio enregistré vocal génneel la mm-hmm. mais di ko seetaan ni toog mu way nga dégg wala nga dégg ne kii mës na way ci lii ñu enregistré ko xam nan daal borom nopp yu baax yi xam nañ mm-hmm. xam nañ yi yu yu baax yeeg fausse notes yi donc moom la ah mais bàyyi leen ci ko dañ koo kii dañ cee yokk lem vu que vu que vu que temps <laughs> donc nañ leen bàyyi ci. mais loolu wax nañ la ko yow dégg nga lool voix bi du yow. non mais loolu c'est rien. a xam lu tax. Mhm. c'est pas c'est pas la première fois que je dirais pas c'est la première fois que les gens me voient en tant que chanteuse mais c'est pas ma première vidéo qui circule sur les réseaux. Mm-hmm. donc les gens ils savent. même bu ñu bu ñu bëggul comme ni mu wax rek dañ leen di wàccal jant ñuy ñiit. Mhm. même bu ñu bëggul xam dañuy dañuy dañuy kii rek dañuy gaañu rek mais. la vie c'est la vie. xëy na effet surprise bi da ngay mën wala nga bi moo tax gëmuñu la xam naa lem bee bari doole. lem be bëri doole xam naa bii suukar bay yéeg. moo tax ñun garaawul bàyyi leen ñu wax loolu man mënuma. lillaay hmm. mënuma ki mënul moo leen nar a yaa ngi naan yaa ngi ñuy nar a jombal. yaa ngi mënuma mënuma yow. Hmm. waaw waxal sa couplet tuuti 18 ñu am 18 ans nañu tam tëdd interview bi jeex. mënuma damay bañ ñeneen ñu. ah doo ñu ma xam est-ce que sa voix la wala. sa c'est pas moi. ay loolu acca acca acca waxal tuuti waxal tuuti rek tuuti. nee naa la moins de 18 ans la ba di nga ci def moins de 18 ans. waaw dinaa def partie boobu moins de 18 ans. lindum yel baby maarawlem formaté sa xel saay-saay laa lay wan tey da nga bëgg a dem ñëwal baby di nga dellu ngéwél àddina laay yëngal si London mënuma tere lëmbal mënuma tere lëmbal. léegi yéen ngeen ne kii du waaw. du ma am si ngeen tooñ nag dañuy tooñ dañuy tooñ <laughs> yi dañuy tooñ donc euh, doo leen def projet ensemble. dafa mel loolu ngeen wax. loo daal ngeen def ko. Ah, ça dépend si ni ñu yeewoo. après man moom elle a sa carrière. Mhm. man tamit am naa sama carrière. bu ma war a bu ma war a gérer kon léegi def musique am na jigéen léegi ma kenn di ma ñi rek laa ci xamoon ay authentique zës ak ñooñu noonu di di kii fii léegi dañ ciy cuuraay def musique def ay cuuraay <laughs> di way ay mbëggeel. <laughs> peinture ko peinture ko <laughs> il faut ngeen changer tuuti wax nañ dëgg. en tout cas man moom lu ma wax sénégalais yi mooy sénégalais yi ak sénégalaises yëpp. Mhm. mag ndaw góor ak jigéen mooy que euh, mu leen di invité pour ñu soutenir kiy toog. donc du ma wax sama jabar wala dara Leyna en tant que artiste mhm. parce que elle peut apporter gros musique sénégalaise bi et mhm. voilà quoi après fierté wu tout chacun lay nekk tu vois un peu dem folo ko ci ay réseau am Facebook Instagram Twitter partout bon YouTube nag génneegul dara mais ça arrive très très très très très mi ngi ñëw léegi da nga bàyyi mannequinat beeg yooyu noonu wala top modèle beeg photo yeeg yu rafet yeeg yooyu noonu dem si aar bi loolu loolu mën ñàkk teel ma ci jonge la bokk. ah, ah <laughs> ok dëgg dëgg fayut. <laughs> ay fayut mhm. lépp lépp je si aar bi bokk tant que tu es artiste lépp ñoo ànd tu peux pas être artiste euh, ni tu peux tu n'es pas moom si jëm boppam modèle la. Mhm. donc euh, lépp ànd bàyyiwuma benn lépp laa boole. lépp nga boole. waaw cere cere bi yi tax subu kànja bi tax. est-ce que da nga am temps togg tamit. <laughs> ah di nga am temps togg régal nii. ceeb bu weex ak ceeb bu xonq <laughs> man est mais man xam nga saabu bu fóot boppam faaw nga fóotal fóotle ma. est que di nga am temps togg togg studio dafa metti de. dañuy géem lañ nekk ci géem gu mitti lañ nekk rappeur yi. ma def ko kii ni ñu koy waxeeti à suuf sama vie privée la parce que sama biir la jëm. ah vie privée sa biir xam sax ndax mën na togg wala mënul togg sama vie privée la. est-ce que man dina dinaa takk jigéen boo xam ne. mën na kon mën na li ma bëggoon xam rek mooy mën na est sax dama lay <laughs> mën na mën na togg kon <laughs> ah mënul togg boo mais nan ngay def euh, di nga am temps gérer sa foyer sa jëkkër c'est facile ngeen bokk li ngeen di def wala c'est un peu difficile tamit nekk sa kër. c'est facile parce qu'on se comprend beaucoup plus. Mhm. dans le sens où ñoo bokk li ñuy def donc euh, parfois maag moom comme ni ñuy nekkee studio par exemple toogandoo fi ba huit muy prise wala man muy prise après moom mu nekk si ay euh, projet boppam mhm. donc bu ma nekkee tamit si si leneen lui il va comprendre parce que il sait que milieu showbiz bi moo demee noonu mhm. du coup on se comprend je je gère mon mari comme il se doit enfin je pense mhm. <laughs> et euh, chaque chose en son temps quoi musique dañ koy jox temps mon mari pareil Et puis, studio bicycle donc c'est beaucoup plus facile pour nous. Mm -hmm. On prend soin de nous, quoi. Mm. kon koor gi di nga taaj ndogu ak yéen. lu neex. Hmm. lu neex koor gi sax laa a yow xool la est-ce que da ngay rab ah. wala <laughs> ñun nag ñu invité kenn dañoo siis. yii <laughs> parce que dañuy lekk rek loolu. <laughs> baax na ñu taajal lekkal ko suñu bopp bàyyi noonu nag. Mhm. de façon dañ la envoyé ay snap mais. d'accord. loolu mooy après nga bëgg a ñëwaat xam nga. may may ndax togg bi day neex. waaw après ma nekk di mer si côté bi mhm. parce que lekk bi daal ñu ma la gisee ni ku bëgg la dàq lekk. <laughs> mën ngay clash waaye naa la alors mm, dernière question dal wax nga ñu ay projet yooyu ñuy xaar dina neex man xam naa dina neex moom mais dina neex force. ñi ma fi bañ a neexal de. waaw ah, tam wax ñu lu ñu lu ñu ah, dina neex alors léegi kat ngeen. 2022 bi est-ce que mën nañu xaaraat leneen loo xam ne yow en solo. c'est notre année. Ah. nga wax ji dem. yow sa année la yow tamit. j'ai donc ah wax nga dëgg de. mais wan wan wan am na ma wax ma laaj tam da bàyyi clash wala da laajuma ko ci clash dara parce que dañoo ñëw wax ci carrière am tey pour ma la ah, internet yi parce que dañuy bëgg ma wax la euh, yow ak Dip fa lay toll ak yooyu indiwuma fi carrière woon nañu waxtaanee ak euh, son bu ñu génnee moom ak jabaram xool euh, évolution seen carrière donc clash bi man góor ñi nañ ko gérer ñoom ñoom pap si dégg affaire yooyu mais man damay ñëw waxtaan ci carrière pour ñu comprendre tax laajuma la question yooyu noonu alors da nga bàyyi clash wala bàyyi woo. maa def sama wéy. da nga bàyyi wala <laughs> bàyyi woo clash. avocat avocat achat <laughs> da ko bàyyi wala bàyyi ko ji ñan ñoo ko dese. Mm. en endurci ak marié yi déprimé seen mariage. ah ñoo dese clash mais lui kii kii dafa talul ay clashante ah, ko clashé du fay. ko koo ni niveau. après <laughs> j'ai mon casquette de rappeur à côté. waaw tu bàyyi du ma wax benn xale bàyyi naa la ak yàlla. j'ai la chicotte et je frappe fort. ku la dóor nga fay bëgg xaru nag. na naari li ñu leen jaar rek <laughs> ah naari li def. naari non kii la Sadio Smith la mbéj bi la leen may. yow noonu ngay def. waaye non man dama lay mbéj ba sa bi dam xam nga kii dañ ko mbéj mu di ree. kon bàyyi xam nga. xaar yéen damay neexal seen interview. ah di lay rek ay gis nga bul yàq bul yàq dernière question tamit yow. non non question bi réponse bi fii ah, kon bàyyiwoo nee na man na bàyyiwul clash ku la ko waaw nee bàyyiwul moo ngi ñuy toog wan nee na bàyyiwul ku ko dóor ko pes bu ngàdd la wan zo clash kenn ah dañ koy ko fayu de d'accord ma xamuñu ko tooñ xaw moom dugg na bu yàgg de sama <laughs> jeexagul xaar plaisir toog ak yéen Sénégal xam nga kontaan nañ ci. léegi def musique nag c'est artistes yi ngeen produire ñoom authentique gis nañ génne na album am seen artistes ñu ngi marché nank nank label bi tamit wax ñu si un mu tëjee foofu. waaw ça def musique moom label indépendant la et que voilà ñu ngi dem ak les moyen du bord. Mhm. depuis le début. et mënoo lim Sénégal te doo lim def musique wala nga lim ay def musique. donc je pense que ñu ngi si ñu si wéy bu baax kenn ku nekk yaa ngi sa sa sa sa yoon. Mhm. di ko tracé et nit yi ñu ngi lay bàyyi xel quoi donc euh, lu may wax rek man moom je suis pas trop doué si génn di wax non lii def nañ lii ñoo def lii on préfère bosser en silence et bàyyi résultat yi ñu wax. Mhm. on a vu album mu Authentic Zeus moom c' est c' est top moom tamit. non c' très bon album. Mhm. en plus c' est c' gars boo xam ne nii jël le respecte beaucoup. xam nit bu liggéeykat la quoi nit liggéeykat la te xam na lu mu bëgg xam na fu mu jëm donc man di def musique loolu la en fait on est gens yoo xam ne xam nañ lu ñu bëgg xam nañ lu ñu def et xam na lan moo ñuy xaar quoi. Mm-hmm. après dañuy dañuy dañuy dañuy wax nit ñaanal ñu rek gudd fan ñu fekkee ko. après ngeen fekkee ko. tàggatoo leen léegi nag. ba merci merci à tout le monde xam nga mm-hmm. merci à fans yi ñuy seetaan yëpp bon man je parler pour moi sama ay fans. xam nga. d'accord. <laughs> ah wan nag moo la yàgg na am fan si fidèle de. attention non non en fait c'est mhm. important li may wax. Mhm. mooy dafa nit yi dañ ma bëgg en fait. tu vois genre je le ressens yow tamit affaire dama koy dama koy sentir dama koy recevoir. Mhm. te dama koy gis quoi comprend nga saa yu ma génnee dama koy gis te aw seen fay laay wax parce que tey nit boo xam ne nii da nga siiw wala ngay def musique wala ngay def sport wala ngay def dara nit yi ñoom ñoo lay dooleel quoi boo defee benn affaire kenn moom moo koy déglu ne eh déglul kii kii ko xam nga affaire yi tas quoi. Mhm. franchement di wax sama fan si aw ma seen fay juste préparez vous préparez leen surtout seen ay poche parce que man dama bëgg xaalis <laughs> damay def lu baax pour yéen en plus dama bëgg lekk seen xaalis. Mhm. comprendre ngeen ma jox leen contenu boo xam ne. <laughs> non benn la yow. bokkuñu dërëm bi gaal gi c'est la même chose. <laughs> <laughs> spécial la yow sa bas. moom instant yow say fan si bees yi. waaw danga may jël micro bi dugg sama biir gémmiñ bi <laughs> ah di leen wax allez euh, allez streamer fort fort fort parce que l'argent tamit foog mu dugg ah. c'est booy bi neex na trop ngeen apprécier neex na waaye da leen streamer bàyyi leen partager bi di screen di yónnee. Mhm. non arrêtez arrêtez sa et puis je vous dis euh, je vois seen mbëggeel si man je vous renvoie beaucoup de love beaucoup de cœur et continuez vraiment à me supporter bàyyi leen wan wan day rap day saaga c'est pas bien man damay wax si mbëggeel. Mhm. lu neex si xol dégg ngeen. Mhm. ñëw leen si man bàyyi leen ko moom. bàyyi ko moom xam commencé may buzz parce que kenn xamu ko ndeysaan waaw ndeysaan et c'est touchant daal mais je de me supporter bàyyi leen man. ay surprise yu tey leen ay yi nag doo leen ñu may def. surprise moom boo ko waxee nekkatul mooy 2022. Mm-hmm. rendez-vous jusqu'à ñu ngi si leen avril. avril ba décembre euh, décembre bi ñëwaat 2023. après ñu mais après koor gi xanaa di ngeen ñu may dara sax. 1er janvier. Mm. nga ñëwaat. incha allah kon ñoom ñoo ma fixalaat euh, rendez-vous ñu def bilan jeex na kontaan naa ci dalal leen c'était fun et puis bàyyee ko ngeen waxtaan ngeen seen fans waxtaanal nañu tamit continue seen carrière aussi lu ñu mën a xaar xam mm. naa dañ xaar lu gën a doy waar kontaan nañ fii doy waar rek fi am hmm? <laughs> lu gën a doy waar moo tax a doy waar rek merci beaucoup en tout cas kontaan nañ trop